asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu loo ngi dellu di santaat yàlla sunu boroom cant koo xam ni am na fu mu tàmbalee waaye amul mukk ab yam waay ci mbaaxam ci yërmandeem ci ndimbalam ci tawfeexam ak jagleelam li nga xam ni def na ko ci coobareem mu may nu nu fekkewaat may nu nu fekk ku fekkee nu rafet akuk tal ak kàttan ak sutura kon yàlla sunu borom boobu noo ngi koy sant bu baax dellu di ko tuubal ci mbooleem sunuy rëcc rëcc ci pas-pas ci kàddu ci jëf di ko ñaanit li ñuy jéemantu ci aw yiw mu nangul nu ko canam toll te bañ a xool sunu manqué ak sunu matadi ak sunu doyadi ak sunu xeebu dellit di ko ñaanaat moom yàlla sunu boroom mu gën a fekk sunu wér ak sunu fan te gën a jàppandal sunuy xéewal ba yéene am yépp ci jaamu ko te sellal ko ci jëfal ko te sellal ko mu defal la ci lu kawe suñu njorto mu mel ni weeram wu tedd wu màgg wii wu sell wii di weeru njëggal di weeru yërmande di weeru ngëneel di weeru ngërëmam di weeru gore ci sawara ndax suñ boroom kat dafa am ay bis yu mu tànn am ay weer yu mu tànn gannaaw ba mu tànnee ay jëmm yoo xam ne ñoo feeñal bis yooyu yi ak weer yooyu yi jaarale nga ne limit ci ñoom weer wi nag bokk ci weer wi nga xamante ni mooy wi gën a tedd ci weer yi ñu ta ñu fekke ko tetal ko tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim ci ak wér ak dal ak sago ak sutura ak tawféq ba may na nu agsi ci fan yu mujj yi muy fukk yu mujj yi mu mel ni kon weer wi boo ko seetloo mi ngi ci di tàggoo képp koo xamante ni nag am na am xel te jiital yàlla boroomam subhaanahu wa ci waxam ak ki jëfam ak ki yëngoom war naa gën a yee yitteem ak pas-pasam rawatina ci guddi gi nu nekk ak guddi gi ci kanamam ndax sunu boroom kat tanassalul malaaikatu wa fiiha bi ismi rabbihim min kulli amrin salaamun hiya xataa matlaxil fajri guddi goo xamante ni kat sunu boroom malaayika yi dañuy wàcc seen njiit seydina jibril alayhi salaam day wàcc sunu boroom ni képp ku may tuub képp ku may tuubal ma jéggal la te nun ñii fi teew day ak ñiy dégg te teewuñu ak feneen fu jullit mën a teew kenn ku ci nekk bu settante ne digganteem ak boroomam yaakaar naa du ñàkk lum yëg ni wax na ko baalum yëg ni def na ko baalum yëg ni melewoo na ko loo xam ne laaj na ak tuub guddi guñ ñi nag sunu boroom dana ci wàcc suñ ko doon misaal ne ku may tuubal ma jéggalu la ku may jéggal ku may tuubal ma jéggal la yaakaar naa ne kenn ci nun mënta ñàkk loolu waaye ku ma ci laaj it ma jox la yaakaar naa ne kenn ci nun it ñàkkut ay aajo yoo xam ni yàlla rekk moo mën ca aajo yooyu dara kon nag bu nu mayee tal gi ak fekke gi nu euh, fekke ko fekke du rafet li nu war mooy ñu dundal ko day mel ni nag dundal guddi jafee tut ci bépp jullit bu amum xel ndax ni ma koy waxee waxtu ne nun ñii ñëpp nu ci bari daanaka ci seen connexion lañuy ñuy fanaan te duñ ko yëkk moo xam yaa ngi ci Facebook ba moo xam yaa nga ci YouTube ba moo xam yaa nga ca TikTok ba moo xam yaa nga ca WhatsApp ba te da ko fanaane kat te doo ko yëg rawatina nag yàlla mi nu bind te moom nu te melal nu te kàttanal nu nu war koy sàbbaal ci guddi yi ak ci bëccëg yi ci suba yi ak ci ngoon yi su tànnee ay bis yoo xamante ni lépp lu mu am ci ngëneel ak njëggal ak yërmaane dëxëñ na ko ca te bépp jullit boo xamante ni teew na ca te sellal ko sellaleenu rafet lam ca bëgg lépp sunu borom mën na ko koo defal nam ko bëggee guddi googu day ëpp naa nelaw ci ku ko man te mat nay waajal ci ñàkk nelaw ngir ngëneel yay wàcc ak leer yay wàcc ak njëggal ga ak ngëneel la ak yërmaande ya dana fekk yow nga taataan say ndab ba yàlla man la caa defal cër bu kawe sa njort ci mbaaxam ak yërmandeem kon guddi gi di nekk di guddi gi laylatul xadar nii nu ko dundale màggale ko ni mooy jàng alxuraanul karim mooy sàbbal yàlla sunu borom mooy jégglu ko mooy ñaan ko mooy sant ko yëkkati xasiida muy julli ci bi sallallahu alayhi wa sallam muy ñaan ko muy jégglu ko loolee rekk moom lañ ci war a fanaane ba asamaan set wecc te di ci yaakaar ak njéggal ay yërmande ak tawfiq la ca toftalu it Fi nu bokk daje ci béréb bi nu bokk daje nu bokk di waajal cant gi nu jëm may dénk saa bopp di dénk bokki taalibe yépp képp koo xamante ni yaa ngi dox jëm si fi nga xam ni la fi indi dafa am béréb yooyu day ak gudd yooyu ak weer yooyu ak jëmm yooyu war ma joo fa feeñal nga warmaal waye ñak war ma joo ca dafa melni nga jëmele ko ci jëmmi sunu borom subhanahu wa taala wal hiyas billah ba taxna bokki talib yi dik yépp ci bis bi ñuy deggmal ma ngi leen di denk ñu andale pas pass andale yitte andale ak selal te nekké ko fi it kum mëna doon bo fi ñëwé na ngay jang alquran na ngay jang khasida na ngay tuddu yalla wattandiku jaxasoo bu amul njariñ wattandiku wax ju amul njariñ wattandiku jënn jëf joo xamante ni meroom sunu borom mën naa nekk ci biir jëf jee nun ñëpp kenn ku ci nekk ña nekk ca durus ba dañ ca nekk ña nekk ca waañ nañ ca nekk ña nekk ca paj ma nañ ca nekk ña ne ca wàllu doxalin wu rafet it nañ ca nekk ñay dalal gan ñi di leen toppatoo it nañ ca nekk ñooy fexe ba gan ñi kenn ku ci nekk nekk ci jàmm nek ci ak dalit nañ nek ci lola ku ci neet it yaa ngi sa kurus kene ca wàllu sécurité fi ne mën naa ngàbbaale kurusam du tuddi yalla ke bari na ñoom nit lañ nekk it mën na su na koo booleeg loola ku ci mën ta bolé ak lola it té la nga nek di liy jëri nit nit nga nek ci ta bañ bolé ak dara di am mbégte lool ak tay dalalit mbokk julit yi fi nga xamanteni barki dembu ba legi ñi nga wacc ci bërepp bi wacc fi ngir lan ngir yaakar jo xamanteni sun borom dogal ñu jëmele ko fi mu yaakar jo xamni amna lu ñëk ci seen yaram ta yaakar ni fi buñ fa accès loola dana saafarawo no ngi leen di dalal ci seen birëb di xam daara ji ak kër gi ko mom man siluna rahbun liman sarahu نحن سواء فيه والطارق ولست بخوال سديف عن لبي ترحل فإن العي منك خريب دين واحد دي من سننا رحب لمن ساره دارج دي لو ياتو لا تي ني ген في فيك ñu ubbi seen xol lañ ñu yaatal seen dënn lañ ndax waxtu wu day ñu ngi xool ci ne loole day coobare sunu borom jum jaarale ci ñoom waaye xam nañ ni du ñoom te ñi fi ñëw kat ngir yaakaar jooju yi yàlla sunu borom moo ko fi def sagale leen ko waaye du ñoom ñu am ci mbég ci akuk cant ndax yàlla kat bu la namee dimbali da liggéeyloo ci jaamu yàlla yi te benn liggéey gënte kawe fexe ba jaamu yàlla la mu ca lott ca te loxoom àggut ca gannaawam nga fexe ba loolay saafarawu genn jàmm féetewut kaw loolu man day danaay faral di wax ni julli baax na lool te fu jotee des na jàpp def ko ngir de yaa yàlla sunu boroom koor it baax na lool danañ ko yéene di ko def bañ lekk bañ a naan saa saamanteeg suñuy gët ak suñ cër yëpp ci ci lépp lu yàqu koor doote suñ boroom nee na koor man maa koy fayal sans bopp bépp jaam bu koy def duma la wakiil ci kenn maa lay fayal sans bopp Sëriñ Tuubaa wax ni am na buntu bopp ci na waaye koor yi rekk ñoo fay dugg kon day woor day mel ni am na wàccukaay bu mag ci diiney lislaam am na wàccukaay bu magit ci suñ boroom subhaanahu wa taala julli it foor na lool ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ni li ñu teqale ab jullit ko kudut ab jullit mooy ñàkk julli kon ba tey loola it foor na lool waaye nag jëf ci jaami yàlla yi yàlla da koo askanale ci jëmmam la ko askanale néewut maa koy fay néewut ku ko defut génn nga ci lislaam wala moo tàqale ab jullit ku ko dub jullit waaye tawat naa seet si wóoma yàlla moo wax ci boppam ne man tawat naa seet si wóoma a ah, seeti ku tawat danga ko def te doo ca man dara ca tawat ja mën na caa jóge wér yàlla mën na ko caa moom naka boog nag di tawat te amul lu mu fajoo am njàqareeg tiis yaakaaru ko fenn furut ci ab béréb mu dem fa ngir yàlla nga def ci yitte ak taxawaay ngir jëmm yàlla loolu jëmm yàlla ji ngay jëflanteel te loolu lu mat a xam la lu mat a bàyyi xel la moo xam tawat jum mën a doon jëf jum man a doon jëf ji jëm ci doomu aadama yi mooy jëf ji ci gën te loolu mooy dëgg-dëggi jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi ba tax na loolu war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax man ci sama wetu bopp day maa ngi ciy sant yàlla yëg nañ sunu lot yëg nañ sunu doyadi yëg nañ sunu xeebu waaye jëf yi nu ëpp yaakaar day mooy jëf yi nuy jëf di ko jëmale ci suñ moroomi jaamu yàlla yi te dama ko waxe noonu waaye xam nañu ca dëgg-dëgg nun jëfunu waaye yàlla mooy jëf ndax waxtu wu ne day dama koy waxtaanee njaboot gi ci biir kër gi saa su waxtu barkeelu jotee la ngay tiim di ko barkeeloo li ngay njëkk xalaat ñi ko aajowoo te suñ boroom dogal na seen loxo jotul seen gannaaw ndax fare na kër googu kat soo fa duggoon mburu mu ñu dogoo sax amuñu ko kafe ga ñuy naan daanaka li ñuy wax damm eh, suukar sax ñi xam dammu dëkk moom lay doon mooy suukar soo xamante ni du saf te dañu yendoo woor ne ci mbóoye mi fañ dëkk rek day metti lool ba foo ko takk da koy weesu te suñuy toog duñ am lenn lu yi as kafe su amul suukar léegi léeg mburu du mën a agsi ci ñoom ndox mu sedd waxaale su ko te buñ demee ba la ñuy tudde reer di ko def lañuy ñuy tiimit bëriwaa na ñooñ ku leen ko waxoon duñ ko mën a gëm wala duñ ko mën a jàpp ndax dañuy jàpp ni ñëpp weesu nañ foofa ndax lay waral loola moom xëy na ñoom yàlla weese na leen weesale na leen ko te ñoom sax bàyyiwuñ ci xel moo ne bépp jaamub yàlla day lépp la la suñ borom defal del xool jaam jaam ya ko yàlla sunu borom xañ lam la defal lépp loo man ci fexe muy jàll ca ñoom nga di ko def te yàlla tax xam ne li tax yàlla defal la loola kat du sa man-man du sa yitte du sa pas-pas waaye coobareem rekk la la tax suñ boroom xañ ko ña ca desit du seenu yaafus de waaye coobareem rekk la lépp suñ boroom ci coobareem rekk ci la ko teg ba tax na ak sant yàlla ci ki yàlla defal ak wér saa soo geestoo ki nga xamante ni bëgg na ak wér waaye lott na ca bari na tey ñooñ bu ñu feebaree amuñu lenn luñ mën a fajoo daanaka lañuy def mooy xaaru la nga xamante ni kenn bu kenn bëggu kenn gaaw a dem waaye laa danañ sonn lool bala ñoo dajeek ku leen dimbali ci seenum pàcc ba tax na kon docteur yi nga xamante ni taxawaay bii ñii nga koy def am nañ ci ci ak kontaante koo xamante ne am na fu mu tàmbali waaye amut fu mu te képp koo xamante ni saw ñaq dem na ca it ne la wóor jëf nga jëf ju neex sunu borom jëf joo xamante ni ci biir jëf ja ngërëmal yàlla mi ngi ci ngënee la ngi ci barkeem mi ngi ci fajog aajo mi ngi ci njëggale ngi ci yërmande ngi ci ndax ab jullit day limu mu war di jikki xalaat saa su amee ak wér yàlla mi ko jox wér gi na fexe ba delloo ko ko ci nangu ko jaamu te sellal ko ciy dimbali moroomi jaamam te jëmm yàlla sunu borom rek a tax waaye bépp jaam boo xamante ni suñu boroom defal na ko xéewalit la mu war njëkk a xalaat mooy moroomi jaamam yi nga xamante ni suñu borom xañ na leen ko ci coobareem mu fexe loole nu mu koy jottalee ba mu àgg ca ñooña waaye nag bari waa na ñoo xamante ni buñ nekkee ci xéewal danañ ca gis seen bopp danañ xeeb ña yàlla dogal ci ñoom seen loxo jotul seen gannaaw te bari waa koy xeeb kat te fekk na yow mi koy xeeb fam na yaa ngi dox jëm fa fi nga taxaw ba gis sa bopp ba yaakaar ni dara nga ngir xéewal gu la yàlla joxal defal ci sa wiir wala daraja wala am-am kookee ma nga dox jëm si foofee te yow yëgoo ko ndax ak mujj rekk a am solo te kenn ci nu nit xamut ci lan lay mujj xamut ci fan lay mujj ki nga bëgg a xeeb fu mu fu muy mujj yow ci xamoo lan ngay mujj motax tax jaamu yalla bu man di doon nga diko gis teralal suturalal warmaalal wegal te jëmmi suñ borom rek tax ndax réeri sag mujj ak réeri mujj koka loola yaakaar naa ne waxtaan ni ñuy def ak dénkante yi li ci ëpp solo daanaka ci loolu lañ koy jëmee mooy bañ a gis sunu bopp bañ a gis sunuy jëf bañ a xeeb suñ benn mbokkum jàmm ngir réere gi nga xamante ni suñ boroom dogal na ñu réere ko sunu mujj ndax jaam bi moom li ko war mooy bu ko yàlla defalee xéewal mu di ko sant su ko yàlla tegoo nattu mu di ko muñ su defee ab rëcc rëcc mu di ko tuub te jëmm yàlla rek a tax su paj moomu weesoo it jëf yi nga xamante ni ñu ngi koy jëf mooy di dogal nit ñi ci seen koor ñu di ko dundal fii ci Manaarul Huda di ko dundal ci jannatul firdaws si Kër Mbay Fall di ko dundal ci Fathul Mubin Taybatul Karim Touba na ngeen xam ne jëf la joo xam ne jenn jëf rekk féetuwu ko kaw jenn jëfit ju nuy dàkk ngërëmal sunu borom ju ko ëpp man dey xawma ko jëf ju gën a dal sama xel jooju jëfit xawma ko ndax aji wor képp de nga dogal ko ci benn tàndarma yiw wa sun borom rek xam num toll waxuma laag nag ya cay toftalu yépp nga di ko def ngir yàlla kon nag maa ngi dénk sama bopp te di leen dénk guddi gii di guddi laylatul xadar ni ñu ànde di ko dundal fii ñu koy dundale ngir jëmmi yàlla te sellal ko ngir jëmmi yàlla aajo am nañ ko ci ñaan bàkkaar ak rëcc-rëcc bu ñu defit nañ ko ciy jéggulu waaye it di ci sant it ngëneelal sunu borom yi nga xamante ni bokk nañu ko defal nun ñëpp waaye bis bi nuy waajal ci sunu kanam it nu bàyyi ko xel bu baax a baax rawatina ci jàng alxuraan rawatina ci jàng xasida rawatina it ci lawraan yi ñuy def moo xam ku nekk ci biir réew mi la moo xam ku nekk ci bitim réew la ni ma ko waxee léegi gan goo xamante ni yaa ngi dox jëm si fi nga wattandu fi ci saw làmmiñ wattu say cër góorlu bu baax ba diir bi nga fiy nekk nga bañ a def lenn lu dëppoowut ngërëmal sunu borom bañ a def lenn loo xamante mën naa sab merom mën naa sabab merom sunu borom ndax kat am na béréb yooyu boo fa jëfee aw yiw suñ borom dala koy fulal waaye boo fa jëfee ab safaanit nit ki noonu te yaakaar naa ni at mi yaatu na lool te doomu aadama bu ne suñ borom daf ko bind ci ban ak ndox ban bi it ak ndox mi day xëcc bànneex ak bakkan seytaane taxaw di ko ca xiir te yooyu yëpp ñaari dana sabab jaam bi di def ay rëcc rëcc rëcc rëcc yooyu nag bis yi nga xamante nii day ay bis yooyu képp ku ca teew mën nga caa jële ak jéggal boo ko sababloo man caa jële yërmaande man caa jële ngërëmal sunu borom man caa jële gore ci sawara bis yooyee boo ca àggee war ma ja ca war nañ commencé bàyyi xel bu baax képp ku fi dikk na nga yóbbuloo loolu muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw fii nag pays la boo xamante ni muy béréb la boo xam ni ak bis bi aajo ju fi ab jaam indi danay rafet njort ci ni sunu borom mën na koo faj baakaar bu fi ab jaam indi dañuy rafet njort ci ni sooy dellu mën nga koo bañ a yóbbaale dañuy rafet njort ci jàngoro it suñ borom mën na ko fee teggee ci mbaaxam ak yërmande ak taw fee yàlla mën na fee yokk yu fan mën na fee yokk ak wiir mën na fee yokk ay tawféex mën nañ ca yokkal sutura mën nañ ca yokkal ay xéewal mën nañu ca ubbi lit ay bunti ngëneelam yoo xamante ni sax xëy na jafe woon nanu kon nag bi yu mel noonu suñ ko amee dañuy góor góorlu bu baax ba yañ daan def ci ay rëcc rëcc ak i mbóosóor ak i caaxaan ñu sànne ko ca sunu gannaaw te bu ñu fi dikkee ñu di ko dundal ci jàng alxuraan ak tudd yàlla ak tuubal ko ak ñaan ko ak sant ko ci lu nëbb ak ci lu feeñ kon loolu lañ bëggoon a dénkante ak mbooloo mi tey ñaan sunu borom bi nga xamante ni dara tëwu ko it mu bokk lu dimbali xëy na jataay bi dañ koy jéem rekk waaye daanaka bërki démb ba léegi sinusite bi daf noo xaw a sonal moo tax kàddu gi sax nam wala leera des na yéene wax moo fi nekk waaye tële gi sax am na muy lott ci wax nañ ko bëggee ak nam war a leere waaye mu gudd ak mu gàtt mooy ak cant mooy ak ñaan mooy ak ngërëm mooy ak ñaan mooy ak ñaax ci ci guddi gii ak guddi yi ci toftalu ba ci guddi gin jëm di ñaan bokki jullit yi nga xamante ni noo ngi jox jëm si fi muy góor muy jigéen muy ndaw muy mag képp ku dox ba agsi fi amal yéen ju sell ba ngay jóg waaye boo dikkee ngàbbal sa téere wala nga ngàbb sa kurus te nga téye saw làmmiñ ci lu sa yoon nekkut te ne ci la la war muy jàng alxuraan muy sàbbal yàlla muy tuubal yàlla muy sant yàlla ñana ca bernde nekk ca ñana ca paj ba nekk ca keneen ku mën a doon it wet gañ la féete la nga féete fa te bañ koo booleek dara loolu moom la ñu dénk sunu bopp te di ko dénk bokki taalibe yi dikk yëpp noo ngi sant ñëpp noo ngi gërëm ñëpp noo ngi ñaanal ñëpp jàmm di ñaanal ñëpp tawféex ju sax di ñaanal ñëpp sutura su sax di ñaanal ñëpp kaaraange gu sax di ñaanal ñëpp xéewal yu sax di ñaanal ñëpp njëggal yu sax di ñaanal ñëpp it ngëneel yu sax dàkk suñ borom bi nga xamante ni dara tëwu ko leeram gi bàyyi koo ci moom te jëm ci moom tam gindiñu ci yàlla na ci seen borom saxal nun ñëpp te dox suñu diggante ak seytaane ba faw te musal nu ci mépp ndokk te musal nu ci bépp pakk te musal nu ci musiba yëpp te musal nu it ci balaay yëpp ci mbaaxam ay yërmandeem ak tawfeexam koo ci xamante ni amul benn ngànt ñu wéyal dundal gi koo ci xamante ni xëy na saw yaramit am na ci loolu it mayu la ko nga mën a dem dallu koo xamante ni yàlla may na la nga mën a toog nga toog te ne ci jàng alxuraan ne wala nga ne ci sa kurus walla nga ne ci tudd yàlla ak sàbbal ko ñi nga xamante ni mën nañoo jàng yëkkati it ñoom ñuy jàng yëkkati waaye bis bi ci sunu kanamit it nu bokk di ko waajal ci nii ma ko waxee rek kenn ku ci nekk daal na nafaraat boppam na seetaat boppam na xoolaat aw doxinam na xoolaat aw waxinam ba nga xamante ni li ci suñ boroom dële lépp ci guddi gi ba li des ci weer wi lépp danañ ko am ba am ca loo xamante ni kawe na sunu jort ndax weer wi kat mi ngi tàggoo muy gan goo xamante ni ci boroomam lay dellu ganase nunu kenn ko ci nekk nam jëflante gan gi gan gi bi dana ko nettali bu delloo ndax gan kat kenn mënu koo teree xool bu dee am nay bët kenn mënu ko teree nett li bu dee aw na làmmiñ mu delloo ca fa mu jóge woon fi mu ne tey gan gu fi dikk moo xam lu la fi mën di indi soo delloo fa nga jóge li nga fi gis lépp da nga ko nettali ni ñu fi jëflante yow lépp da nga ko nettali moo xam lu baax la moo xam lu safaanu la ndax addayfu muxbirun li ahli wa in lam yusal gan moom faw bu delloo fa mu bàyyi ko woon dana leen xabaar fa jóge nam fa nekké won ak nañ jëflante ak mom ak lam fa jëlé wéru koor nak gan la ta mi ngi ñëw na ta mi ngi delu ci borom ta berne buñ ko bernel nak lu jang alquran ak tuddu yalla ak sabal ko ak lele jam ñi muy dundale sunu alal te jëm yalla rek tax dimbali ñu nu tané di fexé dogal aji wor di yërem bindé fi yalla yi ci lépp luñ man ci lu leen di dimbali ci suñu wax ci suñu jëf ak suñu melo ñu di ko def loolekat bu gan gi delloo noonu la koy nettalee sunu borom képp koo ci xamante ni guddi yi ba weer wi teroog léegi foo toll yow lu jàngoo alxuraan lu bari sàbbaloo yàlla defoo listixfaar waaye yaa ngi ci sab téléphone connexion bu jeex nga jëndaat beneen ne topp ay caaxaan topp ay fo topp lu dul noona waris nga nga di ko dundal ci jàng alxuraan ak tudd yàlla ni ma ko waxee léegi waaye gan gi moom sa berneel gan gi yëpp mooy dugg lu sa yoon nekkut mooy wax lu sa yoon nekkut mooy xeeb nit ñi mooy li la yàlla jox nga war caa mën a génne lu takku ci ñi am jëmale ko ci ñu amut dimbale leen ko ngir yàlla ndax xamoo ndax weer wi dana la fi fekkaat na gën a si déwén déet waaye nga jeexal ko ci sa bakkan jeexal ko ci sa bànneex jeexal ko ci mpo jeexal ko ci caaxaan ne la wóor ni su weer wi delloo sunu borom mi bind mi nu bind melal nu kàttan nu andi nu fi su boobaa lépp dana ko ko xibaar diw day weer wi ba mu teroo ba léegi ci bakkanam dong la nekk ci bànneexam dong la nekk ci bëgg-bëggam dong la nekk xalaatu kët ni ko maye woon mu fekke daaw nga may ko ak wér may ko ak tal ba mu fekkewaat ren nga defal ko ci ay xéewal mu wér nga defal ko ci ay xéewal dénk ko am-am li nga ko dénk ci ak wér de yi bi weer wi teroo jooxewu ci dara ngir sant la waaye li ko dénk ci ay xéewalit bi weer wi jooxewu ci dara ngir sant la bët yi nga ko jox nga xam ne mënoon nga ko koo xañ ndax am na koo ko xañ te defu la dara lu tax nga xañ ko ko moom mii li tax nga bàyyee ko ki defalu lu tax nga bàyyee ko ko da koo booyloon nu mu ko neexee ci weer wi du xool lu mu wërta xool rekk sax ca dàkk waaye noppam yii tamit nga xam ne daaw ba ren gisu ci dara lu ko naqari xéewalal nga ko mu fekke waaye bi mu fekkee àdduna ak wér diglu ci ab safaan dong la doon def làmmiñam bii nga xamante nit may nga ko mu fekke ren te ànd ak wér luut dara naqariwu ko ci booyulu ko ci jàng alxuraan booyulu ko ci tudd yàlla booyulu ko ci sàbbaal la booyulu ko ci jéggulu la booyulu ko ci salaatu xala nabi waaye mi ngi ko boyal ci deru gor yi rek ak ci deru julli di rek di wax lu mu xamut di wax lu ko léerut di rambaaj di yàq ab diggante loolu dong la ci nekke te moom day la mu waroon a xalaat mooy bi nga ko mayee mu fekkee ren te ci sa coobare am na ñu fi àndaloon nekk fi daaw nga jëlee leen fi ci sa coobare ñu takk seeni tànk takk seeni loxo rob leen ci biir suuf moom nga bàyyee ndi ko fi di ko xaare bis moo xam am xëy la moo xam am njànq la moo xam am ngont la moom de xalaatul loolu mukk ñee ko won gannaaw day xalamu ci waaru ko bàyyi gi ko fi bàyyi it dellu siwut ci boppam santu la ci ba it tànki noonu xéewal gi nga ko defal mu fekke woon daaw nga may ko mu fekkee ren te am ñu ko fekki wutit tànkam yii de manoon na bu weeru teroo mu ci dox luy jariñ jullit ñi di ci dox loo xamante ni boo ëllëgee dana ko jariñ bu ñu takkee ay tànkam takk ay loxoom di ko yor ci bàmmeel waaye defu ko de mi ngi boyli tànkam rek ci ludub noona loole jullit bu ne war nay bàyyi xel loolu weer wii su teroo pipp jàmb suñ borom dogal nga fekke ko mu mayoon la nga fekk ko daaw mayaat la nga fekke ko ren te nga xam ñoo xam ni yéen a fi nekkoon doowoon daaw nga xam leen moo xam sa jur la moo xam sa soxna la moo xam sa xarit la moo xam sa dëkkandoo la moo xam sa doom la tey jii nekku fi yow yàlla bàyyi la fi te xamoo ndax da ko fekke déwén na nga fexe ba waaye bu gan gi dellu dana la nettali loo xamante ni lu am solo lay doon lu am njariñ lay doon ci sa jëmm ak ci ndénkaan li mu la dénk ci wàllu am-am mu dana la seeral ni kat ba weer teroo ba tey yëngoom yëpp dalam yëpp mooy lu muy def ba sa weer wu tedd wu màgg wu sell wii li nga ci dële ci aw yiw mu fexe ba jot ci moom day def nag kem kàttanam ci kàttan gi nga ko jox ak wér gi nga ko dénkandi mu xam ko ndax xam na ni kat kàttan gi danga ko ko dénkandi waaye ci kanam tuuti kàttan dutu fa nekkati bu fa bu ndeem dana fa nekk ba kàttan di fa nekk mu delloo lépp sunu borom subhaanahu wa ci jëmmam waaye bu dee loo ko dénk ca am amee amelit xam na ne lii loo ko dénk ni nekk la waaye kat ci ñàkk ko ci la dox jëm muy góor góorlu bu baax di njëkkante di def lu baax di fexee dimbali nit ñi ci ñi mu tane ci lépp lu mu loon mën a dimbalee mu di leen ko dimbalee ndax nit ku ne li nga am ngir nga mën cee sant yàlla dëgg dëgg sant ko da ngay xool ki mu ko xañ te féete la gannaaw te nit bu ñëwee di mel ni luy sàkku ci yow ndimbal dimbali woo ko de sa bopp nga dimbali ndax yàlla mi la xiir ci nga gestu kookee yërëm ko bala muy sàkku aka a sabablu nga mën ca dara nga def ko ca ngir jëmm yàlla bul jàpp ne kooku nga dimbali waaye yow la yàlla na ma dimbali moo tax mu xeer la ca loola ndax nun ca dëgg-dëgg benn jaam rek amut yàlla rek mooy aj am ji moo lay nattoo ak wér moo lay nattoo am-am ca biir nattoog wir gi ak am-am bi dana seet ba xam yow wir gii ma la dénk am-am bii ma la dénk nan nga ciy jëflanteeg sa mbokki jaam ñi mooy tax buñ gis suñu bopp te buñ gisit suñuy jëf weer wi mi ngi tàggoo ni ma ko waxee te mi ngi dem te ci yàlla mi bind la jëm. te bu nett bu demee it day nettali ku ci daan fanaanee nelaw doo jóg ci guddi gi sax doonte ñaari ràkk ngay naafila donte tumunu wala rubuhu walla nisfu wala xisbu moom ngay jàng ci alxuraan walla walla ñaari xisib wala ñett ngir sante ko yàlla wala nga sàbbaal ko ci guddi yi ngir sante ko yàlla di xalam bis bi nga xamante ni kat mi ngi ci sa kanam ñuy takk say tànk takk say loxo di la yor ci bàmmeel te su boobaa loo jëfutoon kët da nga ko xeeb ndax fi mu ne kenn ku ci nekk fu mu dégg lu koy jariñ ma ngay def jitte ju mën a am du xool naaj na du xool mbóoye na du xool sori na du xool naqari naa dem day fexe ba yegg foofa ngir njariñ la mu fay dégg bu yeggee mu mën koo jariñoo noonu yi ñuy def nag war nañoo fexe ba di góor góorgóorlu ci li nu yàlla sant ci li nu war ci sunu ci wàllu diine ñu di ko xam boole ci di ko jëfe boole ci di ko dundal te jëmm sunu borom rekk a tax kon rawatina nag ci weer wii nga xamante ni sunu borom dogal na noo ci te mu ngi tàggoo di dem nañ fexe ba bu yeggee ci sunu borom dana nu fa seereel ni kat ñu doon taxaw guddi lañ ngir jëmmam ñu daan jàng alxuraan lañ ngir jëmmam moom yàlla. ñu ko daan sàbbaal lañ ngir jëmmoom moom yàlla ñu daan julli ci yonente bi lañ sallallahu alayhi wasallam ngir jëmmoom moom yàlla ñu daan def ay istighfar lañ ngir jëmmoom moom yàlla subhanahu wa ta'ala waaye ñu doon dimbali ñu nu tane it lañ ci fànn yépp rawatina ci dogal aji woor loola kat dana bokk ci fexe ba bokk ci ñi nga xamante bu gan gi demee di nitali danañ ca am ndam di doon nit ndam lu sax fa sun borom subhanahu wa taala yalla na yalla dimbali nak ba buñ gis sunu bop te buñ gis sunu jëf bokki taalibe yi nga xamanteni nak ño fete ci dëkk bi dañuy wajal bis bi ci sunu kanam nu ubbi seeni kër ta yaatal gan ñi ta dalal leen te gep gan wi di kiit nak nga indaale yar indaale teggin indaale dal indaale yéene ju rafet indaale yéene ju sel waaye ñun ñi nga xamante ni nooy dalal gan ñi nag ñu def isaar maanaam gan ñi gënalu sunu jëmm te jëmm yàlla rek a tax xam ne diggante bi lu gàtt la loo xamante ni ñaari fan la gën nga abale yetti fan la gan ñi mën a dellu nan ubbi sunu kër nan ubbi sunuy néeg nan wàcc sunuy lal jox leen lépp luñ am ci teranga gan di ko terloo ci bu ko gisee mu neex ko ci bu ko déggee mu neex ko ci bu ko jëfandikoo mu neex ko lépp luñ ci man nañ ko def te jëmmi suñ borom rek tax kon loolu maa ngi koy dénk saa bokk yi nga xamante ni ñoo bokk nekk ci dëkk bi kon nag noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp tey delluwaat di baalu xàq ñëpp tey baal àq ñëpp tey ñaan suñu borom bi subhaanahu wa taala guddi gi laylatul xadr gii yàlla nañ ko teewaat ay ati ati ati ati at te at mu ñëwit gën a tawfeexe gën a xéewale gën a jàppandi te fekk nu ak wér gu mat sëkk fekk ñu ci kaaraange gu sëkk sunu borom kenn ku nekk ci nun ñàkkut aaja joo bëgg yàlla mi ngi nuy dégg mi ngi nuy gis te malaayika yi ñu ngi ci sunu biir di déglu sunuy saabal di déglu sunu tuub di dégg sunu sunu borom di dégg sunu ñaan te luñ ko ñaankat kat mbaa ñu tuubal ko ko mbaa ñu sant ko ko mën na noo dolli ca sant ga mën naa nangu sunu cant dolli no luñ ko tuubalit lu bàkkaar ba rëy rëy suñ borom mën nañu koo jéggal ba mel ni bàkkaar mosu faa am lu ñu ko ñaanit suñ borom mën nañu koo defal seet la gën ca lañ ñaan mu defal nu ko bu dee lañ ñaan lu gën la ci nun suñ borom defal nu ko bu dul it moo teel nu ko ca la gën kon ñuy ñaan tey sant tey tuub ci mbaaxam ak yërmandem ak tawfeexam kenn ku nekk ci nun it ah gën a farlu bu baax nag nag weeru koor gi boo koy xool tey danga naan juróomi fan a ca des mbaa juróom benn fan gën ngaa bari ndax yaakaar naa daanaka dugg nañ ci fukki fan yi ak juróom kon dangay mën a wax ne ñeenti fan sax a ca des mbaa juróomi fan kon nag lu ñu doon def rek nañ ko yokk ci suñu yitte lépp luy bakkat nañ ko jéem a muñ lépp luy bànneex nañ ko jéem a muñ lépp luy xeeti jëwu ak rambaaj ak wax lu suñu yoon nekkut nañ ko jéem a daw daw ko ci waxtu wu nekkat la raw la jaadu waaye nag ci waxtu yii nu toll ak guddi yii nu toll ak bis yii nu toll rawatina weer wii nu nekk daf cee raw kon nun ñëpp nu bokkaat gën góor góorlu bu baax di góor góorlu ci tàggat sunu bopp ci mën a jéggale ak mën a jéllale te jëmmi sunu borom rekk tax tey muñ tey sant ak bañ a yàkkamti ci fànn yëpp te yàlla rekk tax te kenn ku nekk ci nun la mbëggal boppam na ko bëggal moroomam yëpp te jëmm suñu borom rekk tax kon noo ngi sant ñëpp tey gërëm ñëpp li ko tàmbalee yaakaar naa njàngum alxor njàngum alxuraan bi noo ngi ci woon njàngum xasida yi noo noo ngi ci woon waaye nag nañ ko gën a yokk muy ci gannaaw julli yi sëñ Cheikh Jaxate gannaaw julli yi nañ ci wàcce nañ yokk lépp lu ñu doon def ci alxuraan bi nañ koy yokk lu ñu doon def ci xasida yi nañ koy yokk rawatina ci gannaaw tëkkusaan yi ah, nu gën koo bàyyi xel bu baax ci ci anam yëpp ci fànn yëpp yàlla na yàlla gën a dimbali yàlla na yàlla gën a jàppale yàlla na yàlla gën a taxaw yàlla na yàlla saxal sunu sutura dàkk taaxiran wa baatinan te musal nu ci ndog yi ak pakk yi ak musiba yi ak balaa yi ndax képp kuy kët te génne koo àdduna la waxub lu ne nga lu ne mën na laa gaar lu ne mën na laa dal noo ngi ñaan yàlla mi dara tëwut nag mu dund ci àdduna dund gu teey